Salut les amis des sportiviers de Baba Show. Merci encore gars, de la confiance renouvelée. Merci de louer des likes, merci de louer des abonnés, merci également de baisser des commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois. de partager génn information yi mbokk Sénégal yi fépp fa la 14 régions du Sénégal ruq-ruqaat yi gox-goxaat yi di ñi également ci l'hôpital hôpital yi ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ngeen wér ak jàmm ñi nekk ci kaso yi aussi erreur judiciaire ak génne la ñu deful mo leen fa yobbu suñu borom génne leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñi dëddu àdduna suñu borom xare leen àjjana fii daw si gars yi yéxé ñu won avance ensemble dans la magie de Baba Show des Sport TV l'actualité on compte continue gars actualité ñu waxtani bu lay bu Boudia mi nga xam day dem du côté de Everton actualité bi mercato bi lépp ñu fas yéene ko ànd ak yeen daa leen si indi ay euh, leeral avant boobu nag ki nga xam ne nag donc Eric Chelle ancien sélectionneur du Mali moom nag moo nar a sélectionneur de Super Eagles du Nigeria, gannaaw bi nga xam ne nag nañ ko du côté du Mali Mali bi nga xam ne na problème loolu jamono ji daal Eric Chelle dans la waa Nigeria dadi euh, tab euh, wa RB Leipzig n'a génne nañ sen maillot sud bi hein donc seen troisième maillot bi génne nañ ko mi ngi les joueurs allemands donc RB Leipzig nga xam ne jamono ngi ci États-Unis tamit États-Unis la gaay jël pour dadi def li nga xam mooy donc seen euh, pré saison donc ñoom it ah, ñu ngi fofu non diko ko ki nak également Dovich ancien désormais ancien joueur de Girona mom dal day dem du côté donc de l'AS Roma ah fo dal la daal di jëm ngeen gis ko ni donc tout est fait pour daal leen euh, rejoindre donc le club italien bi nga xam ne ci et toujours on reste en Italie avec Fonseca euh, moom entraîneur du Milan AC nga xam daal Emerson euh, Royal le joueur donc de Tottenham la dadi djel def ko priorité donc pour daal renforcer la défense notamment que amna ben joueur bo xamné également dina signé légui dafa nek ci ay problème qui nak di Rafael Leao né man du man maay entraîneur ah, mais suma ma pour di surtout muy jouer milieu de terrain laa ko gëna gis quoi mais nak du man may entraîneur loolu dal le kii mooy donc euh, Raphaël Leao daal di euh, wax euh, kii nak également de Chukwueze maa ngi ko don wax démb ah, donc le joueur nigérien ne nak daaw dafa nekkoon ci temps d'adaptation ren moy xol def leen ko ki tek leen ko gëtt démb moo ci match amical bi xamné Milan mi ko don am ak waa Real Madrid 1 à 0 donc c'est lui le buteur. Soukweze mané kon wax légui nak ki nga xamné moy ah, euh, ancien joueur du Paris Saint-Germain nekk tamit c'est mon dañ opéré ligament croisé la moo dal di euh, donc fini ñu euh, day fin 2025 il est cinq ay day mauvaise nouvelle Qui nag également du João Neves donc tout est conclu tay jii la wara du côté du Paris Saint-Germain pour officialiser contrat 70 millions dans le ci Paris Saint-Germain def ak ay 10 millions de bonus pour recruter le joueur euh, portugais de Benfica la pépite portugaise pendant ce temps on ki nga xamné nak moy donc euh, le joueur portugais du Paris Saint-Germain Il xam moom ay gaañu gaañu Renato Sanchez il va faire le chemin inverse prêt avec obligation d'achat là euh, au Paris Saint-Germain tek ci moom daal ko abali nga xamné donc Benfica benen joueur bu Paris Saint-Germain nak xamné nak nag jamono ji moy Carlos Soler wa Real Betis ah, Real Sociedad plutôt

l'anglais daal euh, dellu ca Angleterre daal fi mu ne nii ak Atlético Madrid aussi ñu ngi ci Atlético Madrid aussi ñu ngi baax a baax ci euh, l'anglais Clément l'anglais bi nga xam ne Barça da ko bëgg moom euh, également nag mooy le joueur ah, donc Joao Cancelo moom nag ba léegi Barça ak waa Manchester ñu ngi négocier ah léegi nag Barça li Manchester laaj nangu ko si teg mais daal ñu ngi jéem xool ndax mënuñu leen ko alaat lay lijjanti jamono ji Aynacho euh, dem na du côté de Séville gannaaw bi nga xamee nak ki euh, kii di Nesiri mom jóge na fofu noonu dem du côté de la Turquie Aynacho le joueur donc de Leicester hein donc Leicester moo fa daal dem pour remplacer ko bien évidemment dem nak Real wax na nga ko jouer joué ak Milan AC dañ leen do non bi à zéro ngeen gis Malik Thiaw ci image bi nii ak ki nga donc Endrick qui a joué dem son premier match le joueur brésilien donc mon Mongo amoon na fi occasion bi dugalu ko mais c'est un jeu boo xam pour man malgré marge de progression ba kii na rëy na rëy euh, il n'est pas encore au top ki ngeen gis nak moy yan Martinez moy aujourd'hui la nouvelle pépite du Real Madrid boy bi nak mom la ñuy ne c'est le futur Sergio Ramos mom nak dem def na match bu correct ba tax gaay di sax regretté na leni yoro mom heureusement ba defuñu 40 millions ci mom leni yoro mi nga xam nak il est blessé Paris Saint-Germain nag les informations ñoom dañoo du ne qui euh, dafa am ay problème ak métatarsam moo euh, finalement mujj ñoo insisté pour daal di recruter booy bi nag euh, dem na du côté de Manchester dafa daal di blessé début de saison bi ko que Boulay Boulay, ya le joueur sénégalais de Salernitana moom nag club yu bëri yu nekkoon Lazio Italie nekk ci Italie ñu ngi ko doon bëgg ay Lazio et tout Salernitana d'accord ak nous. du côté de l'Espagne Villarreal mi ngi intéressé ñoom mais instant qui équipe bi gën intéressé ñoom Everton mi ko bëgg a di recruter pour pour former également d' abord le trio sénégalais en attendant beneen sénégalais boo xam ñu ngi koy daal di ciblé loolu nañ si dellu ci si yeneen vidéo yi mais pour l' instant daal Boulaye Dia fi mu ne nii moom entourage ak Salernitana mujjoon nañ déggoo ci ay waxtaan pour bàyyi ko mu dem léegi nag Everton daal moo ci bëgg Euh, dugg pour daal di ko jënd yàgg nañ ko topp ba mu nekkee France ba léegi ñoom nag jàpp nañ jamono yi c'est le bon moment pour mu daal di leen fay fekki Boulaye Boulaye on espère que dina réussir parce que mérité na jouer ak problème yu am Italie et tout les amis c'était les informations qu'on voulait vous donner c'est toujours un plaisir hein, de vous servir ngeen wéy di like wéy di abonné suñu chaîne bi di Baba Show ak Sport TV su baaxee ci la bonne suñu la bu leen fàtte nag TikTok bi Sport TV et Instagram bi Sport Inter jaa